combat bi pourtant for pour man wax naa la ko de. kala mag jeex jaam jeex jaam man booy boobu. jeex jaam boobu dëgg ko ma tàngoon ko ma. booy dafa de. waaye jeex. def jaaw. non waaye dëppul ma leexu nepp jàmm waaye jeex. jeex yow heure bii war na la fekk fii ngay ñu ñun ñu doo dem dëya mu buddi la buddi ñu galaa foofu nga jàpp jeex jaam nga xam ne yaa gën a jeex jaam. wóolu naa la de. jeex jaam jeexul sax. booy ñoo gën a jeex jaam booy. dara da yëmoon mooy daw suñu yaram. yàlla bu ñu teg gàcce booy suñu fayin booy mosuñu am ay ma ko dem waay nan nga gisee tey journée jàmbaar. waaw di leen félicité di wax ne waa Sénégal waa làmb ñëpp ñu ngi leen sargal ndax euh, fi ñu jëlee seen xaalis du làmb jëlee ko feneen ñoo investir ko ci làmb ak xale yu xale yu ñu tëgg ay leer nañ ñi ñu xam làmb lañ ñu bëgg làmb lañ journée bii du journée boo xam ne journée jeudi la war a doon journée dimanche la waroon doon yàlla ak dogalam. ñoom tamit ak seen gëm yàlla ñu ne comme que jàppoon nañ ko dimaas yàlla def ndog-ndog am ñu ne comme que combat bi ñëw na ba pare ñu mën mënoon libéré mbëri mën a dem ci leneen ndax mënoon ñoo xaar ba déwén waaye defuñu ko dañu seen i rakk fi nekk ak seeni i doom suñu téye ba déwén dañ leen di tënk te mën naa yàq seen carrière wala mu soxal seen carrière ñoo nañ ko tëgg tëgg jeudi ku nekk dem seeti leneen moo tax loolu dañ leen ciy félicité di wax nag. ngi jëm ci ko ah. Mbaye Tine Talfa. Mbaye Tine Talfa combat neex la ndax Mbaye Tine njool la te mbaru tànk la te nekk na mbaru moo xamante ni li muy nekk nekk mbaru tànk loxo yi day bëre ndax combat mu mujj fii moog Jara 2 kenn gëmul woon ne Mbaye Tine mën naa song mais ba mu jàppee Jara riñaan ko daa xool fu muy tëdd kon mu nekk combat boo xamante ni Talfa na respecté ki nga xam ne mooy Mbaye Tine ndax xam ne mbër moo xamante ni day xeex day bëre la. waaye Jalfa dafa nekk xale boo xam ne mbërum mbapat la lu mu tekk looy tekki say tànk bu yëngu rek xamal ne moom la. Uh-huh. ndeysaan kooku koy tontoo Zalba ko ñoo gisee seen taxawaay. seen taxawaay jekk na soo xoolee physiquement ñoom ñaar ñëpp taxaw nañ lan laa lay wax ku ci gën a xam sa adversaire man ngaa gañe ndax Talfa dàqul bëre Mbaye Tine waaye Mbaye Tine Mbaye Tine dàqul bëre Talfa ku ci nekk dafa am fort boo am. soo ko utilisé balaa sa euh, euh, adversaire di comprendre nga tàggoog moom njëkkante la mbaytin su njëkkee ci tànk talfa mën na koo daan talfa su njëkkee ci tànk mbaytin mën na koo daan waaye nit mën na joo song ñu borti la nit mën na joo song ñu fàqat la nit mën na ci dóor coup mu désactionné nga gagné làmb ji lu nekk mën na ci am Fatma Dia. baa ngi leen wax li làmb bañ ak li làmb nangu ndeysaan mi ngi consulté juge laaj na Talfa laaj na Mbaye Tine arbitre sifflé na ci diggante ki nga xamante ne Ouzin moom Talfa la géem ki nga xamante ne moom Talfa moo ñëwoon ginnaaw Mbaye Tine moo ñëwoon kanam acca Ouzin Fatma yaa ngi noonu mais loo ci mën a dégg mooy round de salvation du yàgg dañuy xeex jël na tànk ba door na ko dooraat na ko ña xeex door mu daanu door na ko ña xeex Bakaaw Dame Mbaytin Talfa jël na tànk ba Mbaytin Talfa jël na tànk ba Mbaytin Talfa dafay daan war na ko ndomba war na ko ndomba war na ko ndomba Mbaytin Talfa. waaw léeg-léeg la ñu ngay xeex ñu ngay bëre. Mbaytin Talfa ooo. Oh. Oh. waay waay newoon naa la dàq ñoo wëranteeg ñoom ñaar ku ci gën a at xam sa adversaire mën ngaa gagné combat bi Talfa dafa am dafa umpule Mbaytin mbëru tànk la te day xeex gis nga dem ci wetam taxal nga daan ko. mais ñu gis ni. waaw Mbaye Tine li mu foogoon ak li euh, euh, mu. Talfa Talfa Talfa mu foogoon moom daal la wax léegi jël na tànk bi daan na ko waaw waaw daan Talfa daan na ko. oh gémeur bi daan na ko. daan na ko waxoon nga Talfa xale la te xale xaju ci tànk Mbaye Tine mbaru tànk la mais waru woon bàyyi jël bu rëy mu ko daanee boo décortiquer dafa jël tànk bi di ko gitaar Mbaye rasu mu daal koy dëj. da koo tëj loolu xale yi naan guitare da koo guitare. surprise amul. déedéet lamb day faral xale. xale boo xam ne dafa mbapat ba mandi yaram ba yaramam mandi mbapat su daanee mbaytin du surprise déedéet. mais mbaytin li mu foogoon est ce naxu ko. non mbaytin xam na ne am na combat Talfa moo am surprise tuuti ci moom ndax yaakaar na ne combat day yomb daan na muy yombut. Talfa daan na. daan na muy yombut parce que jël na ko te amoon na benn penalty bu mbaytin waaw. xoolal ma lii Ouzin ndeysaan Talfa Gamer bi def na affaire Talfa Gamer bi def na affaire waxoon na ko ko mënoo maa téye te jour bii ngay comprendre ndeysaan góor a sob ndeysaan xoolal ma waa parcelle xoolal ma waa parcelle